asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëgg yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV kon li ma ko waxee rek ñu ngi géejawaay ñëw seet si champion boo xamante ni ndaanaan la ci lépp naam barki Dembo Ndiaye mën nañoo wax ni moom moo mujjee bëre ci combat bi nga xamante ne moom mooy a ah, ñàkk jariñu muy Alioune Seye numéro 2 mbër ak diine lañ fas yéene ñëw waxtaan ak moom wax dëgg yàlla néegam mi ngi nii dañuy ñëw nag xool Alioune Seye nan lay wooree xamuñu nag lu muy def ci biir. bas topp ma kon li may wax nee naa ñun ñoo koy découvrir ndoo ensemble Alioune Seye ak mbër ak diir topp ma salaam salaam waaw bas mbër mi mi ngi nelaw de Alioune Seye numéro <laughs> ah. <laughs> waa mbër mi ni lay <laughs> Traoré Alioune Seye numéro 2 gis ñoo ko découvrir andoo ensemble ñu fekk ko mbër mbër maa ngi lay nuyu. ku wóor tooñ na te yéen ngi tooñ nag wax dëgg yàlla. mbër maa ngi nuyu. jaar nañ Fatma Dia. waaw mbër ni nga wóore. <laughs> Fatma Dia bàyyi ñu bett ko. wax dëgg yàlla nee naa leen nekkul loo xam te ne dañ koy préparé ah xamul woon nag ba xam dina ñëw wala duñ ñëw tey nag ñu fas yéene waxtaan mbër ak diine Paco kañ ñu commencé ne la. Fama la bëgg waaw sànq rek laa tëddaat nag yeewu ci waaw waaw. yéen a doy waar rek barki maa ngi ne sax <laughs> <laughs> Alioune Seye numéro 2 mu nekk koo xamante ni nee leen kenn du ko présenté kenn tey nag moom lañ ñëw gis ni lañ ko fekkee naturellement fekk ko xam nga ak ci néegam fas yéen ah. ngeen. sa waay ku bëri waay. Alioune Seye numéro 2 Bas ah, dañuy kii nag après ñu waxtaan ak moom mbër mi ñu xool nan lay dundee gis nga gel bi waaw ak ak classe nag waaw kay mu nii. moom day sensibiliser moom Alioune Seye numéro 2 day sensibiliser waaw gis nga ndeysaan macha allah nekk célibataire la ah nekk célibataire nekk célibataire li may won ni préparé wuñ ko quoi ah. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال Euh, gannaaw bañ leen nuyoo di leen ziaraat bu baax a baax a baax gis ngeen euh, Alioune Seye numéro 2 tey dañ fekk si fii ci biir këram mbër ak diina nee naa la ki nga mën ak kay ak kay jéem du benn dañoo ñoo fekk ko naturellement muy nelaw ñu yee ko mbër ak diina nag chaque jour nii rek la ñuy def mu nekk mbër boo xamante ne nee naa leen la fi mu dëkk ndax loolu Sénégal yéen ñi may seetaan xam ngeen ko looloo tax ngeen ne ma demal jëli Aliou Seye doo te lépp loolu bëgg rek moom lañu def mais Aliou Seye coronavirus bi daa mel ni yaa ngi koy kiire ndax gis nañ la xam nga yaa ngi sa gel te comme que porte de voix nga da ngay innové. waaw Fatima maa ngi sant yàlla di julli si yéen bi rek di sant. sama ñaar waay porte de voix nga dangay ngay sensibiliser dégg nga damaa juum après nga def ko ren. comme que porteur de voix nga da ngay ndax gis nañ gel bi coronavirus bi waaw dañuy sant yàlla rek julli si bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kaburo borom Daaru Salaam ak mu yàgg fi lool te wér di ñaanal ñëpp jullit yëpp jàmm. weeru koor bi ñu dugg ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin di ñaan yàlla lépp luñ ci ñaan rek yàlla ñu ko suñu borom defal ay yiw defal ñu ko ay xéwal defal ko ay teraanga defal ko jàmm ju sax dàkk ci suñu réew. ci barke Seydina Mohamed mbas mi nga xamante ni mooy coronavirus sunu borom jëlee ko fi làq ko ba dootuñu ko seen ci barke Seydina Mohamed yàlla am na ko mën na ko te yàlla ko yàlla def ci barke ci barke weer wu tedd bi ci barke weeru koor bi waaw. waaw ñu ñun moom comme waaw comme niñ ko waxee rek ñu ngi ñaan yàlla mbas mi dem jóge fi ñun moom jël nañ sunuy sunuy sunuy sunuy sunuy garde wax dëgg yàlla ba pare xam nga di wax Sénégal yëpp nañ waajal. ne feebar feew bu am la ñu jël euh, maanaam distance yi di raxas loxo yi xam nga lépp loo xamante ni kër docteur wax nañu ko rek nañ ko def ndax xam naa ne loolu moom mooy suñu mooy suñu mucc quoi. te xam naa bu ko defee bu ñu sàmmanteeg euh, sàrt yi rek balaa yàgg affaire yi na fi jeex quoi ndax man boo xoolee moom waaw maa ak sama sel waaw kii moom boo fi duggee balaa ngaa def dara waaw <laughs> balaa ngaa def dara dama lay jox nga raxasu waaw <laughs> yaa ñëpp ay raxasu waaw man moom bu ma yoo balaa maa def dara damay raxasu ma génnee balaa bu ma ñëwee balaa maa def dara kon xam nga na ci ñëpp roy rek xam nga jàpp jàppale suñu bopp daal waaw ndax xam naa ne bu ñu sàmmanteeg sàrt rek mooy jàppale suñu bopp ndax instant moment bi metti na metti na trop xam nga lépp kale dara demut xam nga kon bu demee ba demee nii rek ku nekk rek yow yow yaay yow yaay yow yaay sa docteur bopp waaw ñu jàppee ko noonu rek di ñaan yàlla feebar bi gaaw fee jógee ba ñëpp delluwaat seen activité ndax fu mu lépp taxaw na waaw te ñun moom xamuñu lii quoi xamuñu lii. ni ma noonu la ko gars yi tuddee Alioune Seye ñëpp xam nañ ne euh, dañoo nekk ci koor mm-hmm. waaw Wassare concept bi yow yaa ma gën a xam yow moom. wasaare sa kii la. waaw Fatma Ndiaye du ñu def dara lu ko rafet rafetlu ko rek wax dëgg yàlla di ci sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla di rafetlu waa wasaare seen liggéey. min naan euh, mbir moom boo ñëwee soo yokkul rek yaa wàññi te wax dëgg yàlla na moom yéen yokk ngeen quoi ndax seen liggéey rafet na mais tooñ ngeen ma tooñ mooy bett gi ngeen ma bett rek may na la wax dëgg yàlla. <laughs> gars yi Aliou ah. dafa si am ñoo xamante ne samay noon yoo xamante ne yi mel nii samay penalty yi la ñuy bañ la ñuy bëgg di gis di ci jaare xam nga ku ci mel ni xam nga sama groupe dekki lam bi nga xam ne ñooñ sama defet rek la ñuy wër ah. xam nga président Gris Bordeaux. Mhm. xam nga ñoom Lassana Cissé ak ñoom xam nga. Mhm. gars yi waa dekki lamb yëpp Maodo Gris 2 ñooñu nga xam ne samay defet rek la ñuy wër. moom bu ko laal Gris sama ñu si ëpp sama defet la ñuy wër xam bu ñu fekkee nii ma tëdd nii man wëndëg nii tamit xam nga. Ah. mais sant yàlla loolu yëpp tawféex la. di ko la bu baax a baax wax dëgg yàlla bett ngeen ma nag mais loolu yëpp da lay wan ne xam nga ñun ñoo wu daanu daal ñun ñoo bokk lépp. ndax nekk lu garaaw quoi nekk lu metti wax dëgg yàlla sant yàlla baax. Baye Fall bi ñu fekk si la tey. yaa woor. waaw maa ngi sant Serigne Touba bu baax maa ngi woor waaw maa ngi woor nag waaw maa ngi woor waaw. woor gaale wala. non woor woor comme ni ko sunu borom diglee rek ndax ñun moom ay doomu jullit lañ. xam nga ay doomu jullit lañ. nekk xam nga juddu ci juddu ci juddu ci diine ñu yar ñu fu ñu war a yaree xam nga juddu suñu papa nekk ci suñu yaay nekk suñu famille yëpp nekk ci kon seen normal xam nga bu ñu màggee war nañ ñëw jaar si tànk yu ñu yu ñu yu ñu jaarloo wax dëgg yàlla ñu ngi julli ñu ngi woor waaw lañ mais ñu ngi julli ñu ngi woor ah, Baye bi julli moom yokk yokk yiw rek waaw yokk yiw la moom ñu ngi julli ñu ngi woor wax dëgg yàlla waaw. Euh, man moom bi may mooy li may wax rek koor moom dama cee judd ndax boo xoolee suñu kër kër gu mag la newul kër gu ndaw. waa pare sunu papa wax dëgg yàlla bi ñuy gën a nekk booy laa leen di nekk jeune fajar bu jotee ñëpp lay yee mosul foye maanaam lu jëm ci wàllu diine mosu koo foye musu koo caaxaanaan te maanaam du du sàggane doom muy dugg ci leneen bu fajar jotee ñu yee ñu ñëpp ñu julli moo xam da ngay yeewu di jooy moo xam da ngay yeewu di kontaan xam nga moom koor gi noonu doon ci woon foos ak kenn mais da ngay judd gis say mag say xam nga te ñëpp nekk di kër gi di woor donte xale nga mais di nga jéem a donte booy woor wooru gàlle di nga ko def mais di nga am volonté wu woor waa loolu genre. ñaax waaw genre ñaax lay lay doon. donte li ngay def doo ko mën sax mais da nga xam ne fi nga juddoo moom moo tax ñu ñu ngay ngay ngay ngay jéem loolu waaw wooru gàlle moom xam nga mënul ñàkk ci xale. waaw xale moom yenn saa ay mënul ñàkk mu def wooru gàlle waaw képp nag koo xamante ni ah du ma ne ñëpp. mais majeure partie bi Sénégal bi genn wàll yëpp a jaar ci wooru gàlle <laughs> waaw te moom non suñu wooru gàlle Fatma <laughs> Dia embouteillage nga fi dara indi quoi <laughs> non di nga tax sama gars yi di ma kaañoo fii te xam nga mooy loolu mais nag sant yàlla la loolu yëpp ay jaar jaar la loo xamante ni nekkul lu méchant quoi waaw wooru gàlle moom xam nga képp kuy ndaw rek jaar nga ci waaw doon nga xam woor làqatu bërëb dem syndicat xam nga yaa ma gën a xam. ah <laughs> dem syndicat am loo fa lijjanti xam nga xam xale rek. xale moom. bu xiifee lu mu jot rek moom war na da koy suuf quoi. te da ngay làqatu booy wooru gaale doo ne damay gaale. Ah. yenn saa nga dem caare yi. xam ne fi muy wax hôtel mooy fi ñu doon jaay roti yeeg kii yi nante yi non waaw syndicat ay mango bu tombé période orange xam nga loo am rek. xam nga loo am rek pour dog sa koor da koy def. ndax boobaa loolu moom moo lay arrangé. Uh-huh. waaw yenn saa nga dem caare yi hôtel Waga gars yi xam nañ ko mooy fi maquette bi njëkkoon nekk ah. mooy ruq boobu noonu gaa yi nante xam nañ fi may wax <laughs> waaw boobu dee doon na jaay ay xam nga doon na jaay ay nambe di jaay ay roti xam nga jaay ay business yu bëri daal xam nga yenn saa nga laaj fa sa waaye jamono jooju ay mburu faga daga xam nga mm-hmm. nga dem laaj fa dóor xam nga naan sa ndox génn fomp sa gémmiñ xam nga ñëw. ñëw nag daq gën a bëri wax ñépp dàq ndogu ñëpp nag. te wax ah. te da ngay dàq koor yenn saa yi xam nga dem dex meew li jëndi sa benn affaire wala yenn saay nga mar naan dem sangu sangu rot siw bi raxas siw ba mu set. <laughs> raxas <laughs> non nice dama doon woo rooru gaale nag yàlla dëgg rek la bëgg wax dëgg yàlla root siwo bi dugg ci biir xam nga da ngay naan ba mujj gi da ngay yow paralysé ndax xam nga ndax mar gi ngay mar da ngay dugg ci biir douche bi balaa ngaa sangu nga naan naan naan naan bët ki mais loolu yëpp sant yàlla la rek xëy na lii lañ doon lii lii lañ bëggaloon suñu bopp rek. li naan loo bëgg doon rek boo ko doon looloo bu yàggee nga doon ko xëy na lii la lii la tamit moo taxoon. ba bu ñu màggee bi ñu ñuy woor woor wooru métti si ñun quoi. mais boo waree gàll après yaay gën a am appétit sax ñu doon woor ndax yow dèjà yow euh, sa biir jot naa ibbeeku. Ah. ndax ñi nga xam ne ñoom ñoom dañoo wooroon bu ñu ndogu seen du ñu am du ñu amagum alir te yow dèjà ci bëccëg rek am nga ci alir ndax yaa ngi doon commencé di sàcc di lekk di naan xam nga sa biir xaw na ibbeeku boo ñëwee lu ñu fa teg da koy lekk waaw. boo ñëwee nag yaay dàq wax ci ci ci ndogukaay bi waaw mel ni nag waaw yor sa ngan di soccu nag <laughs> di soccu rek lu waay wax nga dugg ci fekk na boobu lekk nga ba sa xolu maam sedd. Ah. mais sant yàlla. mais sa woor dëgg boo daan woor dëgg. Hmm. xam nga parfois da ngay woor sa xel nekk ci navet sa xel nekk ci lii nekk ci lii mais sa woor dëgg na ko doon préparé. waaw non man moom sama woor dëgg boobu bi dégg dëgg Fatma Dia wallaahi man moom yàlla moom moo bindee noonu man moom sama dem-dem bariwul an budul bu ma nekkee booy xam di def affaire jeunesse yooyu mais bi ma màggee ba xàmmee sama woor moom wax dëgg yàlla du ma buuse du dem fenn. waaw bu fekkee ne aw ma lu ma doxi lu am soxla lu am yitte lu am farata du ma génne fii ma nekk wax dëgg yàlla su ma génnee sama deuxième gàlle fii kañam lay invité kañam lay soxla mhm. walaay nekk sama deuxième gàlle mhm. walaay nekk xam ma waxtaan ak gars yi ñëwaat ceene fii nii man daal xama noonu laay mais nag damay woor normal dëgg yàlla du ma ci bu fekkee ne maa ngi ànd ak kàttan rek suñu borom kàttanal ma walaay weeru kër yëpp laay woor du ma ci dog benn voilà du ma ci dog benn ndax ci loolu la ñu yar quoi loolu la ñu Aliou Seye euh, dañuy dégg ñëpp naan koor dañuy profité ci koor. Hmm. naan xaar ma ñuy julli xaar ma ñuy jàpp ndax koor loo si ñaan weeru promotion la weeru promotion boobu. la xam nga weeru ñaan la wax dëgg yàlla c'est que ñuy wax loolu di profité ci weeru koor c'est normal ñu profité ci même même bu dul sax nit maanaam li la yàlla digal da ko war a def mooy dellu julli di woor xam nga di def lu baax mais xam nga. nekk ci lu la neex ba weeru koor nga ñëw nga bëgg ci profité yàlla nag moom ne bëri na ndax nu ne lay nàkkaale jaamam xam nga mais man su ma amoon lu ma gën a dëgg yàlla doo fi nekk di xaar weeru koor wala wudul weeru koor ndax jaamu yàlla jaamu yàlla rek weeru koor dafa gën a màgg rek gën a am yiw rek ba tax na gaa yi ci kii mais weer moom woor ak def lu baax moom amul bés amul weer wax dëgg amul guddi amul bëccëg waaw di ñaan yàlla ñi nga xamante ni tamit dañuy profité ci weer yi ni di ñaan yàlla kàttan nañ leen rek xam nga ba lu mel noonu dootuñu ko defati ñuy julli ci heure xam nga di def lu baax di def lu baax daal waaw ñu ngi leen koy ñu ngi leen koy dagaana ci barke weeru koor bi waaw. ku woor lan comme ni julli di comporté woo rek ni ko sunu borom diglee rek maanaam du woor du du arrêté lekk ak naan rek soo wooree sa lépp war a woor. maanaam waroo wax loo xam ne sa yoon new ci waroo dem foo xamante ni doo fa jëlee yiw yàlla xam nga waroo déglu loo xamante ni xam nga amul la benn njëriñ xam nga balaa càng nga toog yor sa kurus door say door say istifaar xam nga door say salaatu boo boo mën rek xam nga maanaam li la mën a yokkal ay point bëri na daal te affaire yi compliqué yàlla moom comprendre na jaamam ba loo def pour am yiw rek yomb na te doo si sonn moo gis xama gars yi war nañ ci profité daal ndax dangay ngay xëy di dugg ci loo xamante ni man la suma waay amoo ci yiw yàlla amoo ci dara xam nga balaa caana nga jël sa kurus am loo ci xam nga loo ci dóor sax mu defal la bénéfice waaw di ñaan ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm rek waaw woor daal métti na méttiwul métti na méttiwul ndax saay soo xëyee yaa ngi def lu gën a métti woor waaw mais nag comme suñu borom moo ñu ko digg ñu koy def moom dañ ciy sant yàlla baax a baax baax a baax a baax ndax suñu dugalee leneen lu dul lii sax dañ koy def comme liggéey nañu ko nag dañuy sant yàlla rek di ñaan yàlla kàttan nañu di ñu may suñu xelu bopp bi nga xamante ne dañ am conscience ne xam nga koor gi dañ ko war a def te di ko def ci kàttanu yàlla waaw. am na waaw woor am na ñu mu wàcc. ndax yàlla moom lépp loo xam ne euh, euh, def na ko rek. maanaam euh, am na am na positif am négatif boo déggee ma wax la loolu maanaam weeru koor soo ko mënee soo ko mënee war na la soo ko mënul wàcc na la. waaw soo ko mënee war war na la maanaam boo feebaree nga dem kër docteur ñu ne la tey yow moom mënoo woor kooku woor wàcc woor wàcc na ko koo xamante ni tey maanaam euh, nu ma ko mën a waxee maanaam. Euh, dafa nekk ci voyage boo xam voyage bu sori kooku kooku woor wàcc na ko xam nga bëri na daal mais bu la yàlla mënuloo moom dara wokku la moom dangaa ngaa war a woor waaw. Hmm. Euh, euh, sangu set. waaw dafa set si ñëpp la war képp kuy doomu aadama da laa war bu fekkee ne def nga li tax nga war a sangu set rek. da ngaa war a sangu set kon wàccul kenn waaw wàccul kenn képp kuy doomu aadama tey jullit sangu set da laa war même yenn saa bu amul sobe sax war nga jékki-jékki xam ne xaaral ma ma yeesu rek waaw comme ni ngay toogee am jàpp sant na danga war a dem yeesalaat sa jàpp comme noonu la demee rek mais loolu moom ñëpp la war waaw. Mm. toog ay 18 heures gént. gént ba mu gént am lu ci euh, am lu génn ci moom mu nekk ci weeru koor koor googu noonu. da koy continuer wala da koy dokk waaw ah, Fanu Fatima man moom sama alluwa guddul gudd boobu noonu. mais ci li ma ci li ma xalaat ak li ma dégg ñi ñi koy waxtaan waxtaankat yi di ko waxtaan. damay jàpp ne loolu yàqul koor ndax nekk loo xam ne moom moo ko sabablu. waaw loolu moom day day day day day arrivé ku ne may yaakaar ne war na mën a war na war na mën a woor. wala mu waaw day sangu rek continuer woor. day sangu waaw continuer woor waaw. Mhm. Alioune Seye euh, wax nga ko damay julli damay woor. Hmm. Alioune Seye euh, Tisbar ñaata la. Tisbar école douze topp naa ma de. wax na xam ah. la. ñeenti raaka ñeenti raaka la. ñëpp xam nañ ne julli tey benn fan ma jël buy julli rek ñëw amul njàpp ah. njàpp deful dara ñëw taxaw lal ñëw rek fekk nu tudd benn ndoxu poos hmm. ñëw rek lal fa sama si jaada hmm. këpp këppal dem sama yoon am naa waaw mooy li ma ko waxee léegi rek euh, damaa yaakaar ne bu fekkee ne suuf la suuf moom amul sobe bu fekkee am nga loo lal ci kawam rek pour taxaw ci rek ah dama yaakaar ne sa julli war naa baax quoi mais man moom ci li ma ci li ma gëm te jàpp ko balaa ngaa julli moom da ngaa war a jàpp boo amul ndox nga tiim waaw waaw. Euh, tey la. farata la ci julli. jàng Fatiha farata ci farata la ci julli. waaw Fatiha rek julli na. rek julli na waaw julli na waaw. loolu ak ngëneel la rek. waaw day gën a day gën a neexal rek waaw. tey boo julli tisbaar kàbbar. waaw. Mm-hmm. waaw boo boo julli tisbaar kàbbar. tey boo ngay tari ak saar rek. julli ñaar rakk. Uh-huh. taaya daal jóg daal di julli euh, defal sa ñetti rakk dem ñeenti rakk waaw. Mm-hmm. ñeenti rakk la waaw nga sëlmal. Mm-hmm. ah tey gars bëgg a gis Alioune Seye hmm. tey tari ñu benn rakk ñu xool nag. topp man mii jullit piir dëkk Màkka di dem di ñëw bëgg yàlla. Ah, nga ni la. <coughs> man mii xam ne damaa dem Arabie <laughs> Saoudite laa jànge kon de. Arabie Saoudite yi bas. Arab Saoudite di fa jàngee Alise boo reetaan loo ngir yàlla man damaa wàññi léegi ay reetaan Alise Arab Saoudite de bas. mais li nga may def loolu yi ne daf maa neex ndax daf may dàqaale sama ko war a dama fekk ma gën a lef mu. Ah. di xaar ma pour mën a julli. Ah, ngi dàq koor <laughs> waaw baa ngi nii nice bi ah, bas. comme Arab Saoudite wax dëgg yàlla ku fa waxuma sax mais ku fa ku fa yaroo wax sax ma juddoo fa ku fa yaroo rek de wax dëgg yàlla moom. bas sab alxuraan dina neex sab voix dina neex hmm? ah dañuy bàyyi nag ah, ah, pour yi suivre sur Wassare Lamb. Fane Media yow ay wax nga bëgg. <laughs> Eh, bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabil alamin arrahman rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ah, eh, ihdina siratal mustaqim bismillahi rahmani rahim bas nag defe naa nga de looy ree. bas <laughs> dinaa la boole ci dinaa la boole ci journaliste seytaane ya caméraman yi seytaane yi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 allahu laa ilaha illa huwa xayyul xayyum laa taaxuso sinnatun wala nawm lahu ma fi samaati wa ma fi ardi man za lazi yafon indo ilaa bismi rahmaani rajim wa ma xalfum wala yitoona bi see in minal mihim ilaa bi ma saa wasiya ku si samaati wa ardi wala yaodo istahuma wa huwa al-aliyyul azim sadaqa allahu al-azim jullit piir dëkk Màkka di dee ñëw bëgg yàlla ilaa <laughs> ila laa doo fi xool doo fi jëlaat ku teree nii laa lay wax nii doo fi jëlaat ku teree nii ma teree nii waaw léegi nañu nañ bàyyi gars yi seetaat ba xool li ma fi tari nii neexal ko nii waaw nañ dem rek. Fatou Madiaye loolu moo koy def loo wallaay wallaay ndeysaan. <laughs> mais Alioune Seye de nag neexul ba neexul mais yéen nag baat na record bi ah. doo gisaat ku ko def ku xoolal léegi loolu defi la loolu dama lancé defi noonu. Ah. waaw doo gisaat ku ku ku neexalee nii. Ah, ni ma neexalee nii waaye Gris 2 Imaam eh, kooku du dërëm. Gris 2 ah. waaw sama élève la. Gris <laughs> 2 daara la jàngee. yow jàng. waaw baa daara la jàngee booy eh, defee yaa ngi noonu. nag Gris 2 mais li dama seen morom. ah dama laa cofal nii rek xool saar boo xamante ni man la suñu waaye du jël suñu émission mais sinon kaam bi laa lay wàcceel. Hmm, waaye lan waaye yow Fap Madia bàyyi ma waaye. waaw hmm. ah, waaw. Aliou Seye lancé na leen défi ah, non Balla ngi daj la xam. Hmm. waaw maa ko wax la dëgg la la dëgg neexalal yow ba xam yow. <laughs> Aliou Seye ko bëgg mais duñ ko mën ah tamit. xool ma ca bàyyi ma waaye. bu àggul ah, du ci man la. <laughs> Lac de mënul lii Balla mënul lii xanaa sax sama doomu ndey les deux daal moo ci xaw a tane. waaw les ah, la moom moom moom imaam la mais ñaañee. ay tuubeen lañ ñoom ñaar. liir ja Lac de Guiers. laa tuubeen bu mag bàyyi noonu. la <laughs> étage bi. <laughs> Lac de Guiers rek ñoom ay tuubeen lañ li ma cuqulee mënuñu ko mënuñu li may neexalee nii munuñu ko. te boo demee seen faatiyee sax dañ koy xoolaat. ii non Omar Omar dafa mën kii rek. yee Omar sax Salif a ko tane Salif ni mu ko gisee noonu. niru na ma ko kii daal. Hmm. waaw mais ça da ngay la lancer gars yi def daay ñoom Naar Soka sa gars yi. la eh Naar Soka la yii Naar Soka daa daa yëy téere yi. Hmm. waaw Naar Soka daa yëy téere yi kooku moom sama doom yi maa ngi koy siyaar. wér wér waat bu baax a baax ñoom waa Dekkin Lamb ah, di ci nuyu nag ki nga xamante ni sama xarit la woon Gris Bordeaux woon woon di ko nuyu baax a baax. yow yaa ngay wax Gris Bordeaux bu mag bu mag sama xarit la woon. kooku kooku ay mbir yëpp moo si gën a nekk defe ah Gris Gris Bordeaux ah, ngay wax. sama xarit la woon de. ndax su ma nee woon moom xam na man xam naa waaw ah, yow dama la wax dara yow. Eh, c'est que dama bokk ma fi ah bàyyi ma baal ko rek waaye li ma ko xamal yëpp Gris Bordeaux numéro un. Ah. garaaw. Père Kairé nag Père Kairé li nga yee kooku suma papala la kooku suma papa la waaw maa ngi koy ziar bu baax a baax. Hmm. waa Saas tamit waa Axlu Saas. Hmm. waaw waa Axlu Saas maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp wax dëgg yàlla di leen jox seen wàccuwaay di leen baaxalu àq ci weeru koor bi. Hmm. sama papa yi nekk foofu yëpp te Père Moussa Faye jiite ko Père Birahim Père Kati xam nga ñoom Pape xam nga ñoom. ñoom mala waaw yëpp rek waaw waaw comme ku lim jim di ziar sama papa yooyu wax dëgg yàlla leen jox seen wàccuwaay waaw Alioune ba léegi ñu ci koor ndax euh, wax dëgg yàlla yéen am na tey mbëri ku leen gis rek yaakaar ni xam nga mm. euh, te parfois damay dégg ñu naan am na bagage bari bëri ñoom ñoo koy defal seen bopp damay dégg su ma yékki Yékini di wax loolu noonu naan dem naa foo xam te ne ma toll foo xam te ne am na yu bari baa ko defal sama bopp am mm. euh, say jàng daara waaw jaaruma daara na Fatima mais jàng naa mm-hmm. jàng naa arab waaw jàngal téere ba mu jeex tàkk. non sori naa ci sori naa ci xam naa ci nu mu ciy xam naa ci xam naa ci lu bëri daal waaw. jàng naa jàng naa jàng naa arab xaw naa ci sori. am naa lu bëri lu ma ci xam ci ci njàng laa ko xamee mais dew dew ma daara moom wax dëgg yàlla. doo jàngoo daara. Hmm? non euh, dugg école moo tax <coughs> dañoo dugg école. Hmm. ba léegi ci koor gi ñu bari ci koor kese la jaam yàlla bu koor gi jeexee rek pour ñoom pare nañ ci loolu nit war naa waaw loolu erreur gënu koo rëy wax naa ko sànq sama biir wax wax dëgg yàlla yàlla ba mu la sàkk moom hmm. dala fi wàccee pour nga jaamu ko dëgg yàlla wàccee wala fu pour foo wala ay caaxaan tëgg la nag ñun moom ay nit kese lañ ñu bind ci mata ñu bind ñu ci xam ci ci mata di hmm. xëy na ay réer ak ay kërëb kërëb yooyu mënut a ñàkk mais da nga xam ne suñu borom moo fi nekk lépp loolu ma digal nga nga xam nga def sa kéemtalaay kàttan hmm. mais toog weeru koor ba weeru koor wala àjjuma ba àjjuma ngay julli moom loolu moom su ma gisee ku koy def damay tiit wax dëgg yàlla man moom ah naan jàmbaar amul ku yàlla dimbali rek moo fi nekk man moom sañu ma loolu wax dëgg yàlla man moom sañu ma loolu. dul weeru koor damay julli dëgg yàlla damay def lu baax sama kéemtalaay kàttan lépp lu xamante ni leer na ma ne lii lu baax la rek xam nga dama ciy dama dama dama ciy dox. dëgg yàlla mais du xaar ay weeru koor pour def lu baax wala ay julli yooyu non non. wax dëgg yàlla su ma déggee ci même bu du weeru koor sax su ma déggee ne maanaam jour bi baax na pour woor sax su ma amee eh, kàttan pour woor ko dama koy woor. man moom dëgg yàlla jàmbaaramu ko yàlla dimbali rek ñu ngi koy yàlla bu baax a baax mais ñiy def loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ci erreur bu mag a mag a mag a mag ndax soo julliwul yaa xëy di def lu gën a metti julli wax dëgg yàlla waaw. woor ni mu ni mu war a mel même bu temps normal sax même bu dul koor sax noonu nga war a mel. ndax jullit moom danga war a jàmbure xam nga war a wax lu wax def lu defu di dem foo xamante ni bu demee dina la jural njëriñ même boo même bu dul ko sax loolu daf la war yow jullit bi moo tax ne xam nga boo nekkee boo boo nekkee ci woor yi nag day tax nga gën a sàmmanteeg moom respecté ci bopp toog doo wax sa làmmiñ lu ñaaw doo dem fu ñaaw doo jëw doo xas kenn yéen a ñëpp jàmm loo am bokkoog jàmm yàlla yéen Euh, comme benn Fatma Dia wóoru day xiifal xiifal boobu nan nga koy tuddee. waaw non nit moom dañ ko tuuti pour gisé gisé nit moom warul gisé doomu aadama. xam nga nit moom warul gisé moromu doomu aadama ndax yiw ak li baax ci koor moom yàlla rek moom moo ko xam. ndax mun ngay def sa kéemtalaay kàttan sax di yaakaar ne sa julli sa julli baax na wala sa woor baax na. fekk na sunu borom xamoo lu mu namm ci sa woor googu wala sa julli googu noonu. Mm-hmm. moo tax nañ ko bàyyi ak borom xam nga borom bi nga xamante ni moom moo ki am koor ak ki amul koor moom yàlla rek moom moo ko xam. xëy na nag nit ak ñàkk matam moom mooy tax muy xuus si domaine boo xam ne maîtriser ko wax dëgg yàlla man de ma ko. xëy na nag yenn saa yi dinaa wax waaye booy dog nga ndax amoo koor xama pour tooñ nii rek mais nekkul loo xam ne dama jóg pour juger la wax dëgg yàlla mais am na si ñoo xam ne dinaa la yow bu yeboo nga dem dogi xam amoo koor ndax lii laa lii laa naa loolu moom wax dëgg yàlla sañu ma ko waaw ki am koor ak amul koor moom yàlla rek xam waaw. kam jullee ko amul julli yàlla rek moom moo ko xam. lan ah? waaw man moom Baye Fall laa moom man moom mooy li may wax à chaque fois rek man moom lu cin bañul bañu ma ko man moom lu ma dogee rek baax na tàndar ma comme plat yi moom day day yenn saa day waaw day changé wu daal. Mm. tey mën nga dogee mur ak ndambe suba toma comme yaa ma gën xam <laughs> suba nga dal ci def ginaar. gannaaw suba nga def xam yenn saa yi nga def corne yenn saa nga xam. Ah. insaay nga xam nga. nu mu aajoo rek gis naa fi ay kees corne. non noota waay bul yàqalaate amul yàqalaate yaa may dégg xam nga nu mu aajoo rek ñun moom ay Baay Faal lañ ñun moom lu ñu def ba ndoog rek dañ koy sant yàlla li ci am solo ba am solo daal mooy fexe di woor woor bu xam nga bu la wóor ne lii daal. di nga di am yaqin ne sunu borom mën na koo kii ndax looy def tamit dangay gëm ne sunu borom dina ma nangul lii waaw ñun daal loolu moo ñu ëppoo solo sax ko dog bi dog bi mënut a ñàkk ndax boo naanee ndox sax wala nga lekk benn tàndarma rek dog la leneen liñ ci teg yëpp dañ koy sant yàlla rek sa koor ban bi laay heure koor yi heure bi laa ci bëgg. après tas saan bi nii. waaw ah. dama koo bëgg. dëgg la. laay laay la da lay wóor ne dogoo nga xeeñ. <laughs> nit boo si tagaatee ñaari waxtu da ngay mën a naan café wala nga kii. Ah. nga def ay yëf. mais côté 14 laa ilaaha illallah man daal xam nga ban heure daal man bugguma ko daal ci koor ay ay 10 heures 11 hmm. ko ay koor daal ay 10 heures 11 heures ba 1 heure man bugguma ko ci koor daal dafa metti <laughs> Fane Faye lay wax rek de man bëgguma ay ay ay ay heure mi ay ah. ko ci koor dafa metti <laughs> foofu noonu foofu la laam yi dammee foofu non foofu gaynde dëgg fay génn. Ah. moo tax boo duggee ci groupe whatsapp yi wala ngay kii nii doo gis gars yi di taxawaal wala ñuy vocal de. wala ay xeetu vocal yoo xam ne ngay dégg <laughs> salaamaaleykum sama gars neen def. ma ne eh sa waay dem na ardo de waaw. kon day yar nit. non day yar nit. Mm-hmm. Laasana Cissé moom bu